ndax euh, tëgg na côté combat amagul sax c'est-à-dire Gris Bordeaux ak Ama Baldé dañu nar a bëre ñoom ñaar ku ci gagné mom moy tase ak site nak site signé le contrat bi ba paré naka nga gissé déjà combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé ba paré ah avant tout d'abord rek damay remercier staff Gris Fass de di nuyu sama gars yi ma àndaloon matinal léegi Serigne Ndiaye numéro 2 ak Gris 2 ak Lac ma ngi di bëgg bu baax a baax parce que ñom ñoma wacc fi rek fat fat ma ñëw quoi. Mhm. oui wa waxtaanu làmb mom ku ne sa avis ngay joxe rek. mais waaye bul dóore de bul dóore am na ñoo xamante ne xam naa ne bëgg nga leen dóor mais bu leen dóor <laughs> non ñoo bëgg a xam làmb <laughs> oui en tout cas Baye moom taxal na affiche bu am important muy combat giri ak avant parce que bi ñu waree bëri yàgg na mais gis nga empêchement yi ci amoon yëpp après xam nga ba mu ci loxoom quoi di ko ñaan rek mu réussir ko ak jàmm ak salaam suñu nag Siteu ñun daal dañuy ñaan rek yàlla defal ñu jàmm ñu daan ama jël bu nañ mhm. xam nga toogee maa ngi maa prévenir euh, Ousmane naan ko waxal ndànk bu wax bu baax balaa waa Fass yi ci plateau bi di la mere alors ngeen jël Siteu yow nga nekk waa Fass nekk écurie euh, bi nga xamante Euh, physique Gris Bordeaux ndax pare na pour combat bi nga xamante ne moom lay jànkonteel ak Ama pour mun a jël parce que nag ñu bëri ñu ngi wax ci plateau bi que Gris ngi ci yoonu retraite. waaw waaw ku nekk sa avis soo ko gisee am na ay problème yu nekk entraînement ñoo xam ne màgget na leen différence ay âge mais mouvement yi def entraînement ak séance d' entraînement yi muy def ñooñu que mu ngi am na lu am na combat bi am na fu mu ko teg man gëj naa gis situation entraînement bi mu nekk nii depuis bi may seetaan entraînement face. mang koy wax ci ben émission télé en euh, semaine passée bi may sétane jamono bobu mu ngi bëreeg ay baaboy xaw ma ak ay bombardier la doon tax duko sétane gis muy def façon mouvement yi combat bi da jaral ñu bëri nak ci lamb bi la leen giri ba doon di bett da nga bëgg wax giri dafa dellu ci daal non non ni mo gis amna ci yaakaar bu baax baax amul dara dara lu may xalaat ci digënde mak ama billahi wallahi yow ndam nga gis non ndam kessa la gis gisuma leen parce que gisna muy entraîner gisna muy def lu mu dama ko gis muy def lu mu gëjë def ci entraînement mais parisien des fois entraînement day naxe de des fois nga gis état physique non mais entraînement bi mais entraînement du renard se mettre entraînement rek geu a fay. Hmm. waaw. Ousmane. waaw bon limu bëgg dugg ci côté bob man bëriwaa na ay mbeur yu may préparer gis nga entraînement combat c'est différent hmm. dafa am lo xamanteni ni dañ koy dañ koy réeré moy entraîné man bëriwaa na mbër dama nga gis muy entraîner ba ñepp du waaroo su mëgg ko téye salle une heure temps moccu parce que li ñi entraîner bokku tak li def fekk tee ne giri kenn waxul ni mëna na bëri wala mënul bëri kenn Gris mën a daan Ama lu lu logique la mais man dama dama ne Gris pare na ci làmb pare na ci làmb mooy na dem préparer relève. ñun d' accord ñu de ñun moom du ma ko xeeb mhm. ku gis encadrement ci mhm. mhm. Kat Diop yor perte Tafa Gueye. waaw ak soo sañ taxaw pe Ibrahima Mbaye non kooku entraîneur yooyu ban écrit moo leen mën entraîneur kon mënul mun a taxaw entraînement physiquement combat bu ñëw du ko wane. ñaata yoon lañ toog ñu gis mbër ne pare def li mu def yëpp ba ñëpp waat ni diw diw mooy gay dem ñu daan ko daan. bu ko amee mais est-ce que loolu. kay jàpp tam. non waxuma giri non non Ousmane li mu la bëgg a wax mooy. Mm. entraînement bokkul ak dara ak jour combat. parce que combat est-ce que du mystique bi tamit def ci jouer combat mystique bi ah, combat public bi ak mental bi nga xamante ni nii euh, athlète bi war na koo taxawee ci kanam adversaire bi. da ngay xool ñu bokk génération. Mm-hmm. kan moo ci nekk cour bi muy bëre ba léegi. mental bu fort ak encadrement moo ko may. loolu tam dëgg la. attends ngir ñu bokkal génération ñu ngi fi. waaw ñu waaw ñu bëri gaara nañ ma naan ma ñu ngi fi. ci mental bu fort bu seen euh, génération Ousa la. Eumeu Sène a mag Gris. waaw mu ngi noonu. waaw léegi nga ni. bu ñu ko tegee fii dañuy juum. d'accord d'accord d'accord nañ ñu bëri. Eumeu Sène magul Bombardier kii Gris Bordeaux. waaw mais loolu d'accord non moo ko mag parce que am na seen âge bi saison bi ren nee nañ. non dama juum Gris Bordeaux magul Bombardier. waaw d'accord non magul am na seen. te rawul ñooñ dama ni Eumeu Bordeaux xam ngeen kañ la gëj a gañ mm-hmm. li may wax noonu kenn mënu ko contester. Mm-hmm. contre Tyson. Mm-hmm. te ban Tyson la daal. dama koy confirmer si li mu wax sànq. nga ni Gris Bordeaux face ñu ko wër ay expert lañ. waaw ba fi may waxee yow nii. Ah. maanaam écurie Fass ah. université la kenn werante wu ko. dëgg la ci kaw kenn werante yaa que des experts là-bas te ay naar rek lay génnee mais dama ne giri ak làmb ñoom tàqale ko ne mais giri yëgu ko. mais mais mais mais giri bu yi teg la ñu wax ñu même chose. giri bu gagné du ñu bett. waaw bu gagné du bette mu gagné ama logique na. lu leer laa la wax. am na lenn am na xam nga la moo giri boobu début carrière am dañ ko gis Gris Bordeaux bi muy taxaw di bëre arbitre di waaj siffle muy def flexion trois di tëb yooyu defatu ko. boo ko defatee hôpital. waaw xaaral bi mu ko def am na ñu ne mëri ko doon def. xaaral mu dem hôpital. mais trois flexion yi nekkul mooy daan ci biir waxuma loolu de loolu day wane fraîcheur générale. kon entraînement bi ak. Gris bi muy daan Antoine Bakhoum gis nañ ko. Gris Bordeaux bi muy daan Tyson Junior gis nañ da lay fàq mais léegi Gris Bordeaux bëreetul bëree wee Gris Bordeaux bu baaxoon dëgg niñ koy waxee Balla Gaye bii du ko téye ndax moo ko dominé Gris Bordeaux moo ko non attends nag sama que man damay supporté Moustapha Gueye damay supporté Moustapha Gueye dama am penu mu toog lu waxee quoi maanaam ne metti na ma trop mais xam nga tamit ku gis nen ni ne na ngi Gris Bordeaux gañeetul ana nen foofu non maanaam mooy gañeetul léegi donc loolu laay ñaan yàlla xam nga lu tax la loolu laay ñaan yàlla gis nga Gris Bordeaux bëgg naa buy retraité bàyyi si bàyyi bu rafet comprendre nga fi may waxee. mais retraité gul sax daal Gris Bordeaux jeexalagul. buy retraité maanaam li ko dese matul 10 combats. ba ok ëpp ko. Ah. nañ ci dem xanaa 60 ans la ñu. parisien nañ ci dem. léegi xam nga lenn laa la bëgg xamal. waaw waa staff Fass laay laaj. bon mbër nga quoi entre question mbër lay doon quoi. léegi dama bëgg xam ndax yéen combat bi bi ngeen koy jël ñu koy ficelé est-ce que def ngeen calcul ni da ngeen waroon am Gris Bordeaux def comme yeneen mbëri ni am na barrage ni am ngeen sa njaay am ngeen Ada Fass am ngeen yeneen nit yu nekk barrage yu mënoon bëreeg Siteu. ngeen di bàyyi seen ténor bëre bi parisien bu Fass non non mais non non xam comprendre nga li ma bëgg wax maanaam Gris Bordeaux mënoon na sax am ni kii balaa muy bëri man na jaar fii jaar Gris euh, Siteu Ada Fass combat la mm. dañ koy wutale escalier pour mu dem si moo pont moo la Gris pont la. actuellement non non mais Gris du pont maanaam bi yéen ñaa ko gagné daje kii. waaw tirage la de xam nga léegi boobu mëntuñ ko gagné. naa de mais yéen seen staff moo waroon waxtaan am nañ Serigne Ndiaye de. non am ah, ngeen di ak ki la war bëri mais Siteu ah, mm-hmm. amul benn mbër boo ko mën a jox écrit face mu accepté ko bëri moom ko dul Gris Bordeaux mënul nekk ah moom mooy man su ma sañoon tey ku gën a tuuti face sax daan Siteu mm-hmm. mais Siteu soo ko joxoon tey avance boo ko mën a jox écrit face soo ko joxul Gris Bordeaux du bëri mais comprendre nga fi ma doon waxee non comprendre naa li nga ok day bañ nga dóor ko rek ñaan yàlla suñu sañoon tey non non su ma ko waxee loolu su ma ko waxee loolu c'est pour mu comprendre ni Gris Bordeaux looloo tax man day jouer gros maanaam fii risque la lamb moo toll foofu lamb amatul logique gis nga lamb amatul logique choix de l'adversaire loolu dafa am solo tey ci carrière mais risque la jël kan. Gris Bordeaux waaye. mais Gris Bordeaux tey fi mu toll. Siteu bi Gris fi mu toll. ne Gris da leen di nga naan wala. da leen di daan sax Gris Bordeaux tey fi ci fin de carrière am pour s'enrichir c'est tout à fait normal. loolu loolu dañ koy nangu mais man li ma bëggoon a laaj li ma bëggoon a laaj parisien mooy yaa ngi wax que ni tey euh, Gris Bordeaux ñi ko wër ak ñooñu euh, ñoom Moustapha Gueye benn instant gis waaw ak dirigeant yi gis nañ benn pëccoxoo bu amoon biir Fass mm-hmm. est-ce que tey entente amaan na seen biir est-ce que tey Gris Bordeaux nangu naa déglu ñoom Moustapha Gueye di ko conseiller ak lool loolu laa bëggoon nga ànd ci ay leeral waaw question boobu c'est important mm-hmm. mais dinaa la xamal leen écurie Fass écurie bu ko gën a réunir actuellement nii amul amul foo ko fekk mu ngi tous les dirigeants chaque soir dirigeant écurie Fass kese ngay gis chaque 17 heures ñu bàyyi lépp lu ñuy def ñëw taxaw entraînement di seetaan assisté mbëri ndax ku ne xam ne activité père Youssou Lakoum day bàyyi activité yëpp du ñëw te lu ko déplacé yombul père Abbas Ndoye naka noonu ak yeneen dirigeants yi nga xam ne mënu ma lim ñëpp écurie Fass amuñu réeróo de. Euh. ñu ngi en règle chaque jour di entraîner. mais amoon na réeróo. non loolu mënul ñàkk parce que man écurie Fass laa bokk ndax sa lamb sax des fois da ngay jékki-jékki matt ko mu metti. amuñu waaw loolu mënul ñàkk peut-être bi ñoom Papa Sow di budel. c'est ça waaw loolu ay moment la woon rek te ay malentendu la woon rek. loolu diggante Papa Sow ak yenn dirigeants yeeg yooyu. mais man lenn lenn lenn laa ko bëgg laaj. moom moom dañoo woon nag euh, ki dëkk Yaraax Moussa Dioum. Moussa Ndoye waaw Ndoye Moussa Ndoye. non non non Moussa Lacrosse Moussa Ndoye Moussa Ndoye moo dëkk Yaraax Moussa Ndoye moo dëkk Yaraax non Lac Rose dajeeg Moussa Ndoye non Lac Rose dajeeg Moussa Ndoye équipe de face. waaw Lac Rose moo bëreeg Moussa Ndoye. Lac Rose bëri nañ. Papa Sow mosu bëreeg Moussa Ndoye. moo ko raw sax ñoom ñaar duñu gaaw dañ. alors euh, dañu dañu dellusiwaat léegi sax si làmb ji.